TV mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen ngir fas yéene leen àndeel li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb fi ñu koy dooree mooy suñu làmb tey dafa ñëw ak ñun ci champion bi nga xamante ne bii moo gàlloo ndomba tànku roi des arènes ñu naan ko Modou Xarañ loo dëkk fële ca Parcelles Assainies nee na Modou Xarañ loo li nga xamante ne bii mooy certificat médical bi nga xamante ne bii moom la euh, déposé woon fële ca CNG tey jii a jeex kon tey jii moom mii di Modou Xarañ Lo war naa demaat CNG wala benn wala agent bi war naa dem fële ca euh, CNG euh, xamal leen ne li nga xamante ne bii moom mooy euh, certificat médical bi jeex na est-ce que danañ ko jox li nga xamante ne bii mooy beneen certificat buy wanee que mën na bëre. waaw wala déet loolu samp laaj la ba nga xamante ne bii suñu làmb moom moo ko samp ku ne xam ne moo du Lo nag mi ngi war a bëre ak champion bi ñuy wax amaa Baldé nekk fële ca euh, écurie Pikine Falaye balde combat ba nga xam ne yàgg na lool ba mu taxawee boobu ba léegi mbokk amateur yi ñi ngi koy xaar mais boobu ba léegi ñoom ñaar jàkkaarloo gu ñu ngir daal di mën a bëre bu ñu jógee foofu ñu seeti ki nga xamante ne moom mooy Abdou Gueye directeur technique bu écurie Fass Ndakaaru mu ñëw ak ñun ci euh, kii di Balla Gaye nga xamante ne bii moo war a bëre ak euh, Gris Bordeaux troisième tigre de Fass nee na Balla Gaye mbër la ma nga xamante ne bii adversaire bu dangereux la ndax macha allah euh, li ñuy wër ci làmb li ñuy wër ci mbër lu bëri mi ngi ci moom mën na bëre te it mën na xeex. te en général li ñuy gis muy wax ci signature de contrat bu arbitre soufflé loolu lay def nee na nag Balla Gaye gàddaayoon na fi ñetti at gannaaw ba mu dellu see la tegle li nga xamante ne bii moom mooy ñaari victoire Gris Bordeaux ak Modou la ci jëlee ay ndam war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii nag mooy Gris Bordeaux ci mois d'août bi ñu dëgmal euh, Abdou Gueye di rak ci Mbaye Gueye le tigre de Fass nee na combat la ba nga xamante ne bii combat bu métti la wante Gris Bordeaux mu ngi ci préparation bu am yu am doole moom tamit ñëwal nañu ci diggante Sa Thiès ak Reug Reug nee na ñoom ñaar ku ci nekk. am nga ay possibilité ngir euh, daan sa moroom ndax ñoom ñaar ay ndaanaane làmb lañu teyit it euh, mën nañoo bëre trop trop trop mu ne Sa nekk na champion ba nga xamante ne bii macha allah euh, mën na bëre te it ay kombaam en général du du duy du yàgg waaye wax nañu ne Franc mu ngi ci yoon. pour dugg ci cercle boobu wante ki nga xamante ne bii mooy Serigne Ndiaye ñu naan ko Coriace tamit war naa fexe mën a dugg ci cercle boobu nga xamante ne bii fa la ñoom Sa ak ki nga xamante ne bii mooy ñoom Reug Reug nekk. bu ñu foofu ba léegi dañuy desandi ci boobule combat muy diggante Sa ak ki nga xam ne moom mooy euh, Reug Reug euh, incha allah nekk combat ba nga xamante ne bii tamit macha allah. combat bu combat bu neex la euh, suñu làmb ñëw na samp beneen laaj nee na ñoom ñaar kan moo ci war a nekk titulaire pour dugg ci cercle des VIP fekki ñu ci mel ni ñoom Modou Lo ñoom Gris Bordeaux ñoom Bombardier ñoom Tapha Tine ñooñ nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk cercle des VIP suñu làmb ñëw na sampab laaj ne ñoom ñaar kan moo war a mën a daan ci combat boobu ngir fekki champion yooyu nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk ci euh, kaw làmb ci kaw euh, li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji bu ñu jógee foofu ñu seeti ab Abdou Bakhoum mu ñëwal ñu ci choc bi war a am le 19 juin di combat bu neex combat ba nga xamante ne bi amateur yi ñu ngi koy waxtaane bu baax a baax a baax muy diggante Sokh ak Franc mais Abdou Bakhoum lim ñu xamal mooy boobule combat cinquante cinquante la loolu la ci gis mooy ku ci nekk am na ay am na ay euh, atout pour daan sa moroom ku ci nekk am na ay possibilité pour daan sa morom dëgg la façon bëri yi bokkuñu ndax kii mbërum mbëru mbappat la def na lu nekk ci mbappat nekk ci dynamique victoire nag teglante boobu ba léegi mu teglante ay victoire déggagul mu ñal ñu naan ko Franc soq tamit macha allah combat bu mujj ñu gis ni mu ci jëlee jëlee ci ndam lu am solo kon mu ne moom daal li mu gis ci boobule combat mooy cinquante cinquante ñu seeti kii nga xamante ne bii moom mooy Moget Evans ku ne xam ne ne moo moo tëgg combat doomu dàngu ak ki nga xamante ne bii moom mooy Jordan suñu làmb nee na doomu dàngu ak Jordan combat bu nar a la ci Jordan. li tax mu wax loolu nag ndax nee na doomu dàngu euh, mbër mu naqaree bërël la champion la te it wax dëgg yàlla gis nañ li li nga xamante ne bii def na ko ci làmb ji kon daal suñu làmb nee na combat bu nar méttee métti la ci Jordan combat buy compliqué la ci Jordan ñu yónni yàgg rek te xam ne yàgg bawul dara incha allah fii ak le 15 mai soree tout ñu jógee foofu dem ci drapeau du chef de l'état bi war am fële ca njaareem sama dëkk incha allah le 6 jàpp incha allah euh, suñu làmb nee na ki nga xamante ne bii moom mooy Serigne jaay dellu si waat na Mamadi njaay dellusiwaat na Gaskel Jammeh dellusiwaat na Fambouda tamit dellusiwaat na nekk ay ténor ya nga xamante ne bii macha allah euh, drapeau du chef de l'État min nan ko kon mën nanoo jàpp ne champion yooyu dellu si nan ci drapeau du chef de l'État bi war a am fële ca njaareem nar nekk drapeau chef de l'État ba nga xamante ne bii ténor yëpp ñi ngi ci biir ndax ténor yi nga xamante ne bii ñooy bëri ci lutte simple bi ñëpp mën naa ne. régions yi sélectionné nan leen ñu fas yéene bokk ci boobu la drapeau ñu nar a gis nag euh, drapeau chef de l' bu neex incha allah foofu ca Njaareem rendez-vous le 6 le ak le 8 foofu ca Diourbel bu ñu jógee foofu ñu des ci drapeau chef de l' ba léegi ak capitaine équipe bu Diourbel ñu naan ko booy fay ñu ne moom ba léegi moo continuer di nekk di diriger. équipe bu Diourbel di nekk capitaine bi ndax xam nañ ne drapeau du chef de l'état bi jàll fële ca Kaolack ndangaan moom moo ko jëloon ak équipe bu Diourbel ñu ne nag équipe bu tat euh, booy Faye ak Diourbel ak Diourbel ànd la ba nga xamante ne bii ànd bu yàgg la wante euh, équipe bu Diourbel bi gisuñu ci ki nga xamante ne bii mooy Ganja Fama gisuñu ci ki nga xamante ne bii moom mooy Mburoog Ndambe wante gisuñu ci ki nga xamante ne bii tamit moom mooy Euh, Rajaxe nekkoon moom tamit 100 euh, kilos ci équipe bu Diourbel boobu wante DTR bii di Modou Fall nee na loolu euh, nekkul dara ci li nga xamante ne bii moom mooy équipe bu Diourbel bi ndax. li ñu defoon loolu la ñu bëgg a defaat mooy jëlaat drapeau du chef de l'État ba léegi suñu làmb mi ngi laajte Saliou Mané ñu gën koo xam ci professeur maane nekk écrit parcelle nekk écrit Grand Yoff te tête de file ba di Zarko mu ne Euh, Saliou Mané bi euh, ban adversaire lan ko war a jox ndax ci victoire la jógee mi ngi mujj a bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Sa Ndiambour nekk mbër ma nga xamante ne bii tamit bokk na ci espoiru làmb te it mu ngi wane boppam ci làmb ji di wane ay preuve am mën a bëre. mën a xeex bu bëree mu neex bu bàkkaw mu neex macha allah professeur Mané suñu làmb nee na ban adversaire la ñu ko war a jox euh, ba léegi ñu seeti champion ba nekk. waaye ñu naan ko Lac de Guiers numéro 2 nee na moom li mu bëgg mooy jàppale doomu ndeyam bi di Balla géey ci lépp ci yëpp bëpp côté nag moo xam mooy entrainement ak lépp la nga xamante ne bii rek war na ko cee mën a jàppale ngir mu am ndam ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Gris Bordeaux nee na pare na pour jàppale ko ci le penseur de Waalo ñu naan ko euh, euh, Lac de Guiers numéro 2 nee na pare na pour jàppale ki nga xamante ne bii moom mooy doomu ndeyam di Balla Gaye numéro 2 combat bi war a dox ci digganteem ak ki nga xam ne moom mooy euh, Gris Bordeaux euh, bu ñu jógee foofu ñu dem fële ca yoof dëkku umulaay suñu làmb nee na yoof ñoom ñi ngi ci ay jafe-jafe ya nga xamante ne bi seen champion yi ba ñu bëree ba léegi seen combat yi mujj yi euh, neexle wuñu ci daal ñu mën ci jàpp ku mel ni ki nga xamante ne bi moom mooy ñu mën ci jàpp ki nga xamante ne bii moom mooy ja mën ci jàpp ki nga xamante ne bii moom mooy Caatu Yoof mën ci jàpp ki nga xamante ne bii moom mooy Gine ak Ablaye Diop ak euh, yeneen champion yu bëri yi nga xamante ne bii ñu ngi foofu ca ca ca Yoof kon daal mi ngi noonu. Euh, écrit yoof nekk écrit ba nga xamante ne bi tamit dañu bokk ci làmb war nañu mën a dellusiwaat waat seen bopp bu baax a baax a baax ci làmb ji bu ñu jógee foofu ñu dem record fekk fa Assane wàllu Gueye euh, moom dafa ñëw ak euh, ñun ci xibaar bu tiis bi nga xamante ne bi moo dal ci kaw làmb muy génn àdduna champion bii di Moussa Dioum nekkoon tête de file bu écrit parcelle mbooloo Moussa Dioum nag génn àdduna démb ci euh, guddi euh, record nee na ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax euh, écurie la écurie parcelle mbooloo yëpp rawatina ak lu làmb wante ñi ngi koy jaale ñëpp ñi nga xamante ne bii ñi ngi ñi ngi ñi ngi nekk ay mbokkam di ñaanal champion boobu di Moussa Dioum suñu borom yërëm ko te jéggal ko mbokk yi loolu mooy li nga xamante ne bii moo fi ruusoon ci wàllu xabaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de ren fii ci Leewtoo TV jaageen jëf di jaajëfal bu baax a baax sama caméra sama caméra woman bi di Ummulaay maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Mansour Fall le benjamin des caméramans sama chauffeur bi nga xamante ne bii tamit macha allah lu mu dawalul baaxul kooku mooy Mamour sama mbokk bawol bawol la ñoo bokk dëkk ñoo bokk dëkk Jurbel nee naa ko Mamour yow bu ñu dàq woon ñooy jitle su ma gàddoo sama mbuus nga gàddu sa saak ñu jëm njaareem mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Mamour sama mbokk bawol bawol boobu wante Cheikh fay la grand coach. maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax macha allah liggéey bi am na solo jaajëf ki nga xamante ne bii moom mooy doomu ndeyam di euh, Maysa moom tamit macha allah gis nañ liggéey bi ngeen di def ci xale yi euh, di leen ñaanal xale yépp nag signé pro incha allah bu ci yàlla àndee yàlla na ko suñu borom def dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de l'arène jaa ngeen jëf.